alhamdulilahi rabbil alamin lépp bëgg na sëriñ bi lool. soo leen bëggee di da ngeen di abonné ko defee dara dootu leen raw ci liggéey jërëjëf. suñu alaaji takk ko mu maam si xanta nettali na nit mu nettali ma ne ma mbaa yéen a ngi góorgóorlu ci xaside yi ma ne ka ah, waaw ñu ngi ciy def lu ñu mën de mu ne na ko góor góorgóorlu de te di ci mokkal lu ngeen mën donte wenn bayit la xamoon ngeen ne nit buy faatu te nekk jànkatu xasida nee na day am jëmm jur taaru ju ñëw taxaw sawet moo tax tiitum dee doo ko am nen doo ko xam nag waaye